man de gisuma ko waaw waaw d'accord parce que man de gisuma ko ndax mosoo mosuma leen a dégg fii nii man fii koo fi woo maa ngi koy dégg non déggati kañ déggati kañ ñëw nañ fi xëy na def émission ci leneen lu leen soxal mais ñun non man léegi man waxuma lool man waxuma lool de dama ni attaqué bi nga xamante gars yi dañ ñëw di leen ko wax benn chef Boubacar Samb keneen ak keneen ak keneen ñëw taxaw ni la ñii jiite suñu ay maire yor suñu santé bi maanaam doxalul suñu santé ni mu ko war a doxee maanaam maguy bi bari na ci hôpital bi un respecté wuñ hôpitalu Kébémer deux

li tax tàkkul ko xam nga lan moo tax tàkkul xam nga lan mooy problème bi gars yi sax jox information parce que man euh, information la jox information da nga war a chercher ji information yooyu sax li ma lay wax yaa ma ko gën a ak fukk ak ñeent yow di seegani gars yi buñ lay wax naa la jënd lii à douze millions treize la lii jënd trop mais mais du ko mais kaay ma ko benn affaire mais kaay ma ko benn après na nga tej nan ñoo leeral dama ne suuf si ñi koy dal hmm. xam nga tey ji bu fekkee tey danoo war a dagg côté Mbassine war nañoo wala côté Gala wala fenn tay war nga mëna wo conseil municipal wo secrétaire municipal bi wo au moins que un un un quelques quelques conseillers municipaux mais suuf que ñi koy dal manam ben groupe la bo xam ne gaay ñoo leen créé ci maire bi duñ conseil municipal bu dara te kaay ma wax la ben affaire bu fi est-ce que xam nga ni maire bi ñu fiy liggéey nii maanaam seen ay kayit dañ ko falsifié kaay ma wax la benn secret est-ce que xam nga nii ñoom ñoo ëpp salaire anciens yi fi nekkoon ba pare dañ euh, bi commencé liggéey ak léegi yàggul mais tey boo demoon seen ay kayit dañ naan la euh, def nañ 17 ans de service. ci maire bi ci maire bi xam nga gars ay sàcc la. nu ma la ñuy sàcc yow est-ce Boubacar li may wax nii lenn dama ni la dama ni la anciens yi nekk ci mairie bi di ma dégg ñu dama ni gars yi nga xam ne sa waay moo leen créé indi leen ci mairie bi jël suñu xaalis di ko sàcc di leen ko fayee dama ni ñoo ëpp salaire ñetti yoon ñi nga xam ne mairie bi ñoo leen jël maanaam dañ liggéey pour état bi dañ liggéey pour ñun est-ce que dégg nga ma Boubacar maa ngi dégg bu baax voilà xam nga hmm, du ma la jàngal un débat mm-hmm. xam nga ko un débat scientifique c'est un Ah, dañuy soxla léeg-léeg ñu xam ne li ngay wax ni xam nga yaa ngi ci li ñuy wax spéculation nga nekk nii. xam nga laa bëgg nga xam ko. Ah. bu fekkee ni dañ bëgg lu leen leer. waaw ah. li ma leen di wax nii. nan ni ma du dëgg. man waxaguma la fi dara lu leerul nga ay scientifique de. scientifique de yow yow yow moom say loxo rek nga yor di wax. xam nga lan moo tax samay loxo laa yor fu mu fi mus a ñëwee. Mm-hmm.

mu tontu ma ci rajo bi ni ma c'est pas vrai ñun liggéey luñ ko loolu amul man ko non yow awma lu may wax ak yow parce que intérêt moom moo tax nga ñëw ko participer ci lii ci ëllëg ñaanuma yàlla ngeen gañe maire boo leen ko gañe li ma la wax moom mooy nekk parce que moom ngeen di préparé pour maire mun moom ñun musunoo préparé pour moom parce que li mu doon toog toog na ko ba pare mais bi ñu demee bi ñu gagné moom moo moo moom moo toogaat mais ni mu toogaatee waat tamit moom ñooñu ña ko doon défendre ca ah, demal nga dem jëli élément bi nga déglu ña ko doon défendre ci rajo bi man ak ñoom maanaam ñoom la am na loolu di sàcc dëkk bi di sàcc suuf dem ci taatu bi di ko séddoo dem ci suufu c'est-à-dire ay sàcc lan ay sàcc lan. d'accord kooku moom maa ko wax. kooku moom man maa leen yéen franchement parler vous êtes des voleurs bak Seydina Mouhamed respecté wul leen nu mais ñun nawloo wul leen en tout cas dinaa la wax benn affaire bu ñu defee nii dañ ñëw naan leen ay sàcc ngeen dénoncé dénoncé rek ci lan yam ñu ngi nax seen bopp parce que ay boroomi xam-xam lañ ko seqal dina la wax benn affaire Baye Mbacke dafa am benn affaire bu ma la tëmbal ca bàyyiwoo ci xel dama ni la.

nga xam ne tey ñoo nekkee mais xarañ. ñoom ñaata ngeen seen bari na. mënuma ko lim mënuma ko lim mënuma ko lim te pi bëgguma di cité di dëpp ñenn ñi. am ngeen ay récipients yi man na wala ay turu mouvement ngeen yor rek. turu mouvement mooy tur boobu loo xam ne tey boo ko defee suba du existé. yaa seen candidat xanaa. non tout question de candidat. ku nekk tam ki ñuy gunge mooy ki nga xam ne moom moo xam li Kébémer bëgg. ki ñuy gunge mooy ki nga xam ne te jii bu ko joxee Kébémer mu changé. ki nii gunge mooy ki nga xam ne du doon sàcc. ki ñuy gunge ki mooy ki nga xamante xam na ni ay doomi dëkk bi moom ñoo ko jox seen kàddu ñun ki ñuy gunge mooy nit ki nga xamante dafa sañ ay loxom dafa sat dama ne la alalu mbooloo kenn ko jiw dama ne la lu ñëpp bokk da koy teg ci yoon xam lan moo mënta am bu ñu joxee courant bi nga xam ne dugaluma ko fi ku faral la ko man courant bi ak si xanaa xamu ni problème mu réseaux sociaux yi euh, yi nga xamante gars yi dañ ci xeex

ah mais loolu noonu demee ko. noonu la de parce que mooy kay conseil municipal la ko yor. déedéet il faut que nekk conseil municipal bu kay maire nag moom demeewul noonu. mais yow li ngay wax lii. <laughs> non nga na maanaam ma ci xam mooy ah ci sama kii. li nga jàng ak li war a nekk li normal. waaw man ci li ma jàpp. li war a normal li normal. waaw man yow da li normal mooy. li ma jàpp voilà. mooy que conseil municipal yi ci biir ñoom la ñuy ay président mën nañu commission éducation mhm. commission de la euh, jeunesse wala commission sport wala commission domaniale genre yoy non man ñun nak ki nu jité dafa defe ni dëkk bi royaume la quoi mom affaire léegi maanaam yow ki yor wàllum suuf si commission bi du conseil municipal nga wax conseiller municipal la ki nga xam mom lañ jox commission bi mais dama ni la ñi mu àndal ñu nekk ci biir mairie bi di fa liggéey yor ah, ay salaire yox déglu ma dama bëgg nga ma attentivement non ma lay déglu dama ni foo wax dama ni wax bi dafa li may wax dafa leer naan dama ni la maire Kébémer boo fa demee ñu ëpp salaire maanaam maanaam boo bëggee dégg dëgg primaire la yor ay ñi C1 la yor ñi C2 la yor maanaam mun ma déglu ma bay mbàkke da jox nañ leen ay poste responsabilité yoo xam ne te ca amoo sax niveau BFM kooku si trop bay mbàkke gis nga bay doomu adama da nga koy jox li mu war li mu yeyoo te et puis li gën a graaw mooy dañ fekk ñi nga xam ne nente maanaam ñoom lan mën a def loolu leen neex ñoom ñu post poste yooyu jox leen ko parce que ñoom leen mën a àndal pour def lobbying bi nu war a def dama la Kébémer bépp jeune bu fi ne maanaam affaire jaar na yoon maanaam te bokkul ak defeyaa yi ko wër doon ay féeg loolu mënul ne sax. ndax wax bi rek. ok wax bi dina rafet mais dama ko waxee noonu rek waaw maa ngi ci kàddu bi mais dama bëgg nga xam ne rek maanaam dama gisul man mënuma accepté. ban jeune mooy ñëw taxaw fii bay bay mun la man damay défendre ñi fi nekk lii ñu def parce que gisuma doon def xam nga Baye boobu ba léegi yaa ngi leen di woo mënunoo ñëw xaw ma yaa ngi leen woo xaw woo leen xaw ma yéen ak ñoom di yéen a far man loolu moom lijjantiwu ma ko mais en tout cas man li ma xam mooy tantôt bu ñu fi defoon dara yow doo leen woo ñoom ñooy ñëwal seen bopp ni la xoolal ni la maa fi def lii maa fi def lii maa fi def lii mais man tey boo ma waxee ñoom lan lan fi def mais lu ñuy daj kenn du ko jeex yow journaliste nga li am ci dëkk bi xam nga ko bu fekkee dëkk bi 2000 ba léegi am na lenn lu mu fi yokk wax ma ko wax ma parce que ñoom 2000 ba léegi ñoo yor yor na 21 ans dëkk bi 2000 ba léegi ñoom ñoo yor dëkk bi am na xale yoo xam ne tey judduwul woon te tey mën nanoo voté ak xale yi ci amoon 3 ans fi mu man nañu mën voté c'est grave te bo ba légui gisunu Kébémer changer ci tar tay ji nga dem ci djup marché bi doo mën a dugg marché Kébémer bi manam liko ko defee place Cheikh Aline Kébé jàpp Cheikh Dakoumba maanaam foofu noonu boo fa demee nga yor sa moto wala nga yor sa oto wala nga jaar sa ay tànk da am problème da ngay ña fa nekk yor ay cantine tey ji di fay ay weer tey ji ni ca par force ñu fay weer mais ñun problème lañ am mais ñoom bi ñu waxee maire sax dañ leen man ba moo juddoo ba léegi fi laa ko fekk loolu tontoom la moom jéemul ci dara jéem dara parce que mënul dara xam nga lan la man te jox leen ma chaise xam nga lan lan man wut ay jënne xam nga lan lan man gas bopp koñu kebemeer yi suul fi ay boppi ay affaire non xam naa li may wax man li ma wax lépp xam naa ko mais yooyu yëpp dama bëgg nga xam ne ci jinne ji mënut a mujjee réew mi parce que fii yàlla moo fi nekk. ala kulli xaal dëgg mooy mujj gis nañ euh, yaa ngi porté un combat aal ngay waxe sax. non euh, gis nañ ne yaa ngi waxee aal euh, c'est baax na ngay dénoncer. mais également am na ci yoo xam ne xëy na bu ko nit ñi déggee da leen xaw a jaaxal danaan la exactement est noonu la noonu li may wax bu fekkee du dëgg noonu la porté plainte xam nga bàyyi. te nii la man du ma dof dafa ma dina jàpp ma xam naa lu ma bàyyi lu ma lay waaj wax rek suuf boo xam naa ko barke yonent bi man bala maa xool garab mango ba ca kaw xool reen bi ci suuf xam naa lépp j'ai tout ca bàyyi dama bëgg nga xam ni presque dama jàkk ci seen biir et nag bàyyi ñun ci dëkk bi lan dëkk duñ ay dolli yaan ci dëkk bi kee maire ñi géré maire bi ay dolli lan fi ñun ñëpp booy yi fi nekk di saboté dëkk beeg ah, ak ñi fi fal moom xanaa waaye maire bi du dara maanaam conseiller bi dama ñi mu àndal di yàq dëkk bi parce que Seydina Mouhamed ay d'origine kee ay dolli yaan lan ci kee maire ñoom ñooy saboté Kébémer li may wax nii lu leer nañ la bàyyi man ci dëkk bi laa dëkk xam naa li may wax dama ne dolli yaanu Kébémer ñoo yàq Kébémer et puis bàyyi kat moo xam benn affaire xam ne site yi gën a baax ci Kébémer mooy ay kër yu baax jege tali bi bu weso ñun ñi nga xamne te dañoo mag dekk esca manam ñepp ay jambo ay ay ño xamne dekk ci dekk bi ñoko mom ndax lan xaalis suñu dekk bepp jaay na et puis non dañu jënd et puis xam nga fekkon da ngay jaay suñu dekk ba paré di wax seen xaalis bi kët ma ngi koy defal ci seen marché bi fex ba étage seen marché bi dina def le tout ba seen marché bi doo tout temps na def le tout ba seen tali bi rafet dina def le tout ba jeunesse bi mais bu ñepp liggéeyoon xaaj bi dina def le tout mais yow maire bo xamne capable pour tek ployer maire boo xam ne te yow mënoo gérer maanaam kaaf ginnaaw. yow kon gisoo benn réalisation. lenn lan fi def muy benn baar lan fi tijji. baar moom dagganal ko fii ci. fii du ma tudd tur ba parce que bu ma defal benn baar publicité. man maa ma naan naanu ma ci bëgguma gars yi naan. mais loolu man bu ma doon naan. parce que Seydina Mouhamed moom moom nit ji ñoom ñi ko dagg laay bàkkee preg yi. mairie moo ko équipé waaye du waaye ban équipé yow man bu ma dikkee ne la baar laa bëgg yow maraa dikk ni la kër laa bëgg mayoo ko kër xam ni baar day yàq dëkk bi ñaata baara fi ne boobu ba léegi baar baar baar baar lan la lay doyee baar et baar yoo xam ne jeunesse bi nga xamante ne ñoom ngay poussé ñu fay dem liggéey amu fi y rien booy li ñuy am as néew muy ay jakarta maana ay nii ay booy yoo xam ne te da leen da leen xool sax ba ca gëm seen bopp xam nga gëm sa bopp mooy lan mooy tey jii ñi la war a dimbali pour la daal xaaroo leen ñàkk leen a xaar mooy nga liggéenti ba fexe am sa benn mais c'est grave loolu du fay non du yi li ma parce que ci daw mais dama bëgg bañu muñu fay mm-hmm. mais nan ko oyofal tan leen xel te yenn yi leen ni fay parce que xam tax wax bari bàyyi ñun am nañ ay frère am nañ ay rakk am nañ ay xarit am nañ ñëpp ñoo xam ne dañ ciy liggéey xam nañ leen man ak lu man mm-hmm. est ce que dégg nga fu may wax ak yow maanaam dañuy poussé booy ñuy def loo xamante di jël yenn risque yenn risque yoo xam ne ci Jakarta lu leen di jaral di jël ay nit di dem ak ñoom ay kilomètres seen ay ci yooyu yëpp xam moo ko waral damaa waral versé parce que majeure partie booy yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci tali bi mu sax moto yu ñu yor waa dem versé seen borom war a joxe sa kër lekk war fa joxe naan mais gars yi ay ay ay yi kër la mm-hmm. nan waxante dëgg et puis problème bi mooy na leen ko oyofal mais ñu jàpp jakartaa yi arrêté leen jàpp saret yëpp arrêté kalandoo yi nag moom waxatuma seen i léegi léegi man bu ma sañoon xam na ne def boo yëpp yor jakartaa ñu yor kalandoo ñu yor wucci gars yi danañ jëwandoo tekkee ndool tekkee ndool tekkee ko ko biir maire yi wala ñu dem ba police ñu tekki leen ko ñu xool après léegi lan la parce tamit dëkk boo xam xamante yow xam nga ni dëkk bi doxul Kébémer moom doxul parce dafa ndaw kon taxi fii ak li fi ne lépp di taxi dafa metti dafa metti kon ñun il faut ñu wàññi taxes yi bu taxe bi méttee dañuy wàññi taxes yi mais dañ leen a xonetloo dañ leen a ragalloo booy bu onze heures et demi jotee ñu jëkkante dem gaara ji Jakarta parce que danaan na damay jàpp damay fay sii nii damay nii nii nii boo xam ne une semaine nga waaw guddi gi maam dafa am yooyu noonu des fois nga gis ay xam ne te ñu ngi dëkk ci dëkkul sax di dëkk ay ay ay ay ay dolli yaan lan fii te dañuy dawal seen ay moto ci town bi man damay dajeek nit à partir de heure boobu noonu ñuy yeb ay clients di indi man man jëkk naa ci garage bi ba tàyyi jël fi Jakarta lu weesu euh, minuit ca kenn jàpp ma. mais loo xam naa règlement police la. non man boo xawma règlement kan la man xawma kuy réglementé loolu mais am na ci yoo xam boo ci réglementé tam da ngay xool li nga xamante mooy dëkk bi xam nga euh, ab dëkk bala nga ko defar da ngay xool dëkk bi li mu attan nga jàppale leen ci mais Kébémer dañoo xonet Kébémer xam ni Kébémer dañ xonet jeunesse Kébémer dañ xonet Kébémer génn fi maanaam moo gën dëkk fi gis nga bu gàddaay yi amoon Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadal man gàddaay yi bàyyeeg ñiy dëkk bi jaral na ma parce que man daal nawloowuma leen parce que seen dara rafetul. mais d' accord yow lan ngay proposé. li may proposé mooy Kébémer mooy suma papa yi. muy suma nijaay yi muy suma yaay yi muy suma frère yi muy ñi nga xam ne tey man ak ñoom ñoo bokk même génération ñi nga xam ne suma ay copain lan ak ñi nga xam ñun ñoo àndandoo ñun ñëpp ñu ñëw rejoindre mouvement Kébémer gi ñu bëgg maanaam ñun dàqunu kenn kenn rek lan dàq mooy ki nga xam ne moo fi nekk te Kébémer intéressé wu te balaa mën a def ay at wala dara maanaam politique jub si parce que jàppe na ne Kébémer daal da nga leen a war a xëpp dugub bu politique jub see maanaam bu lambee nga dem bu simbee nga dem bu nu sabaree nga dem bu nu di defee ay ciet yo xamanté ni nga dem di takal nit ñi ay mbandal di def ay affaire yo xamanté kenn mun ko comprendre mais lolu mo fi am suñu maire bi lolu lan fi nekké et puis di gëna graw moy mooy wul njaaxaanaay nday ji non mom du nday ji cheikh mom warut a nekk kii parce que xam tax du nday ji cheikh manam du gestu càmmooñam mom li ko intéressé moy ki nga xamanté tay moko jox bok kessé te kébé maire doxewul non maire yi fi jaar yépp ku ci nekk da nga def dara bàyyi fii tey nga commencé ko ci dam kebe da nga naan moom moo tax tey suuf stade bi tey sax ñu àggale ko wala ñu am tey benn basketteur NBA nga wax Mor Dieng ñun la bu mu kii kii moo fi def tey tali bi def fi tali bi moom moo tee tey boo dee dem sama ko turandoo sa tànki doonul cher ci bu leer ñi fi jaar nga ni Paa Alé Kébé moom moo tax ñu am mairie bu bees bii mais am am nga benn aire boo xam ne fa la lay jënd ngay noos. non foofu dañ fa yàq lu bari. tooñ leen indil leen inondation maanaam profité fa pour sàcc fa suuf profité fa pour yàq dëkk bi. ñoom teguñu dara loo xam ne tey dañ ko defoon pour dëkk bi dañ ko tegoon pour seen mën a créer yenn booy juut yenn affaire ay booy yu ndaw yoo xam ne tey amagul ay 25 ans 35 ans 40 ans mais boo leen wutal liggéey da nga leen wutal ay liggéey yu baax yoo xam ne dañ ci mën a am kër dañ a joxe suba dépense a koy dimbali ci loo xam ne tey ëllëg du xalaat dara mais doo fekk ay genre espèce job yoo xam ne kenn xamul yenn genre job la bu doon tey sax ay doom la doo leen ko jox parce que man gisuma mu jël benn doom wala kenn jox leen ko en daal xam naa ni moom ñi nga ay goroom lan takk ci ñoom. d' accord d' accord la waatal. seex ay vainqueur la ñuy yor. d' accord nañu gën defar débat bi un peu. waaw d' accord léegi léegi yow mouvement nga yor. da ngeen dem élection wala doon dem élection. dañuy dem élection. mouvement kan mooy seen candidat. non candidat bi mouvement bi génneegu ko. mais candidat bi mooy doon mouvement bi nga xam candidat bi nga xamante moom moo xam li Kébémer bëgg. candidat bi muy doon mooy doon candidat bi nga xam ne te Kébémer moo koy ñor maanaam. yéen a ngi ciy waxtaan pour le li ma la ki nga xam ne te jooyu Kébémer moom moo koy ñor. dañ bëgg nga xam ne ñun candidat bi nga xam ne te moom lañ bëgg mooy candidat bi nga xam ne te ay loxoom dafa set. dañ bëgg nga xam ne Baye Mbacké ñoom tapet yi nan bàyyi di la poser di la yónnee ay message pour nga may poser message yooyu. parce que ñoom respecté wuñ seen bopp de un mooy ay parce que ragal mooy ki nga xam ne tey da ngay toog ci plateau mu naan la posé lii waxal ma ko nii laajal ma ko lii. non euh, Cheikh xam nga aussi. Euh, man attaque dama bëgg ñu waxtaan man ak yow ci sa xel man xam nga gis nga bàyyi. non non waaw may ma ñëw xam nga euh, sànq nag ma attaqué d' accord naa. Mm-hmm. man moom ku ku ñu wax en tant que journaliste ku ne defoo li wax rek amul problème. waaw. mais euh, yor naa sama téléphone wuyu naa. nga ne ma xam nga loolu dama ko faral dégg ñu ne dañuy envoyé message. waaw man man xam nga xam nga dama ko faral dégg mais man dama la ko wax direct ci rajo. dëgg yow non du ma ko lire du ma ko lire. non non lire parce que xam nga problème bi mooy. mais yaa ma ko bind ko non. non yow yaa ma jox say question ñu waxtaan ma waxtaan waaw ok waaw d' accord. amul kenn kuy taxaw biir Kébémer ba ñi ma jàngal université Gaston Berger en communication amul ku ma ciy jàngal virgule laaj ko ci question bi wala li ci li oh, ñoom xam xam nan ko même bi ngay jàng li nga maîtriser lépp teewul li ñu bëgg a def ñoom mënoo ko tee def moo moo seen téléphone ba du ma lancer message man tey bu ma bëggee lancer message mën nga ni ma chef bu ma lancer message mais bu ma lancer message nga liir ko. te méngoowul question bi ma la bëgg. waaw mu ngi noonu mais bu méngoo bu méngoo nga posé ma. non bokkul non non non non non non non bàyyi. am ko daal xam nga bëgg ñu bañ a jël suñu temps ci man ak yow parce que yow suma gaañ nga. d' accord yow dama ñëw euh, fii pour man ak yow ñu leeral. d' waaw waaw dañuy leeral te ñu leeral yaa ngi leeral macha allah. Mhm. donc euh, mën nañu ubbi téléphone bi en attendant ci euh, ñi bëgg participer. waaw aussi di wax ne c' est boo xam ne. Mhm. c' est un mhm. la ñuy dal président mouvement Kébémer bi ñu bëgg ñi nga xam ne dañuy participer ñu teg ko ci yar ak euh, teggin ku ci am sa question boo laaj nga laaj ko ak Boubacar bi nga xam ne moo togg ku ci am sa contribution booy def nga def sa contribution boo xam ne da nga koy teg ci discipline téléphone bi 77 056 70 728 96 97 Modou technicien bi mooy toppal téléphone alors Cheikh Boubacar ñu jëm ci élection yoo xam ne hmm, salaamaaleykum. waaleykum. ñu wàññi rajo bi kooku. Euh, Cheikh Matar ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. maa ngi ziar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. di la nuyu yow Baye Mbacke. jërëjëf Cheikh Matar. Euh, di nuyu Cheikh Bouba. Euh, di nuyu madame moomu ci plateau bi. di nuyu euh, directeur bu rajo bi am. ak sama jigéen ci saa mi daa ko nekk ci rajo. di la nuyu yëpp yëpp. jërëjëf. bon di vraiment rafetlu émission bi. di wax ni kooku ci toog. nam sama rakkam euh, donc lépp loo xam ne rek ñu ngi ci li ma war a def mooy toog di ko déglu te maa ngi koy déglu la boobu ba léegi koy déglu te bi muy ñëw waxtaan naa ak moom parce que am na droit def li mu war a def mhm. ndax ci dëkk bi la bokk sañ na gis loo xam ne lii pour euh, baax mu dénoncé euh, waaye dama koy ñaan rek yu gën a rafetal waaw xam nga wax dëgg mën nga ko def sax mais rafetal ko rek parce que avant kuréel ñun ñëpp kenn meer benn bopp lañ. Ah. et je sais que moom moomu combat bi muy mëne man xam naa ko parce que bëggul injustice bëggul lu bopp. Hmm. te ku nekk ci réew mi am nga droit nga gis loo xam ne war nga ko xeex pour sa réew wala nga xeex ko pour sa réew nga jóg soo ko daal xeex ko en assumant toutes les responsabilités hmm. mais li may ñaanal rek. mooy ngeen gën a lucide ngeen gën a ànd ak dal parce que bi neex na te ñëpp dañ koy déglu ngi ciy jëm kawe mais dëkk yi su ko gënee moom dal loolu laa koy ñaan te xam naa ni moom lu ma ko def loolu dina ko def moom sama rakk la xam naa ni moom sama yeneen rakk yi daf nañ ma seen kilifa daf nañ ma seen bàyyi nga su ma ci sant li nga def di ma lool kon loolu daal laa moom naa euh, wax ko ci d'accord amiin amiin jërëjëf Cheikh di ko gërëm Cheikh Matar Samb moom it bu baax la du jaar ci wetu garage bi te ñëwul fii dañuy nuyu si liggéey bi ñu def également mu ñuy encouragé bu baax a baax à chaque fois dañuy encouragé ci liggéeyam ñu koy gërëm di ko sant toujours wala 70 allo salaamaaleykum. waaw kooku. waaw sëñ bi naa def waay. maa ngi sant rek noo tudd. kontaan nañ ci waxtaan bi lool lool lool lool lool. ndax dëgg gi nga wax moom kenn daa am lu ñuy wax dëgg gi. lépp tax saaxee nañ. dëgg la. toroxal nañ góor yëpp. ay baanu la toroxal nañ góor yëpp. dal na fi yàgg jërëjëf. jërëjëf ñu euh, kon téléphone bi. Euh, ci euh, ñi bëgg a participer euh, indi seen xalaat ci lu gën a jëmale dëkk bi kanam ñi ngi jëm ci ay élection locale kenn ku ne mën na cee joxe sa kàddu fàttali ñu ngi dalal Cheikh Boubacar Samb président mouvement Kébémer bi ñu bëgg du ñàkk ne say farandoo ci mouvement bi waaw. allo salaamaaleykum. waaw waaw ñu ngi lay dégg voilà koko don eh, du ñak nak sa mouvement bi mën nañoo gën a mën a participer dégg nga dégg nga sa frère euh, Cheikh euh, Cheikh Matar voilà mu suma papa la moom moy suma papa dal mm, même bi sama papa di dund da naka mom ñëpp moom la nu mos a féetal sama papa suma taw mom la ko tuddee moy suma papa moy suma lepp ko noonu mo ko waxe rek mom mo nek parce que tay ni bi may jóg bu mo mom moy seul ki nga xamni bu mo won moom Cheikh Talib yow du chimie ni ma bul dem émission da fay tok mu mënti demee su ma woo ni ma bul dem du ma dem waaw salaamaaleykum allo waaw ñu ngi lay dégg sëñ bi allo allo mel na retour bi baaxul allo allo waaw waaw sëñ bi ngay def waaw ñu naan waaw noo tudd fa ngay woowee waaw kii ka ko Baye Mbacke Baye Mbacke la waaw ah waaw moom la waaw waaw mais c'est similaire la def na leeram. ah waaw da ngay gën a déplacé un peu pour nga am retour bi ñi ngay dégg ñun fii ci plateau bi ñi ngay dégg. waaw maa la Modou Sall. Modou Sall. Modou Sall waaw. ah professeur d'accord Modou ñu lay Modou ñu lay nuyu baax baax. ñu lay nuyu baax man waa ñu lay nuyu. ñu lay nuyu baax yaa ngi dégg. waaw waaw ñu ngi dégg ñu mu bàyyi la nga participer ci débat bi di fàttali ne Modou Sall conseil municipal la. ah dëgg la ñu lay nuyu baax. waaw maa ngi ziar bu baax. maa ngi ziar waaw ñu ngi sant yàlla bu baax moom. ndax waa ñu ñu ngi doon suivre émission bi ñu yëpp rek ñu ngi waa ñu ngi suivre boobu ba léegi. Mm-hmm. vraiment débat di mm-hmm. euh, ko di ko di ko joindre rek ci ci li mu fi jot a développé. Mm-hmm. peut euh, ni nga bëggee mu mu mu scientifique xam naa ne du ko mën a du ko mën a am solo rek moom mooy kàddu yi dëggu na. Euh, li muy wax ñoo ko fekk la. moom tey moom la waa cabinet bi jooy donc euh, ñun bu fekkee tamit dañu nekk ay bien vrai que sax <laughs> tey mën nañu dépassé na ay jeunes mais dañu ah. euh, am ay ay ay safar ci dëkk bi dañoo war a soxal au plus haut niveau te ñun amul keneen koo ni mieux placé na pour wax kon moom li muy def noonu dañ ko di encouragé di wax ni fi mu teg tànkam Euh, léegi nag man dama am benn contribution bu ma bëggoon a def rek. d'accord euh, ci wàllu li ñu jot a développé moom ndax euh, coow li bare na ci wàllu kër yi wàllu suuf yi ndax même le ministre là de l'urbanisme ñu ñëwee fii Abdoulaye Sow def na reporté peut être nit nag fay def ci attention mais dafa ni dëkk dafa war a am plan directeur d'urbanisme. Mhm. plan directeur d'urbanisme moom mooy tax nga mën a planifier. li nga war a def ak dix ans cent vingt ans boo xoolee ay yu mel ni kat natt bi am un plan d' urbanisme à l'horizon deux mille trente cinq boo xamante ni da nga naan yëpp deux mille trente cinq lii laa bëgg ci terrain lii laa bëgg ci hôpital lii laa bëgg ci et cetera. nga def ko benn plan boo xam ne daf ko même boo ko jógee sax benn su ñëwee daf koy taw Abdoulaye Sow bu ñëwee fii loolu la ñu yëpp boo ci danañ fekkee di ngeen a bañ ay ay ay ay ay ñu ko ay installation anarchique maanaam ay dëkk ay ay fàkk dëkk ay yeneen dëkk yi dafa war a am plan directeur global yi moom mooy yombali fii beneen point bi moom mooy si boo xoolee si zone yi Kébémer man amaa connaissance Kébémer amul plan directeur global yi boo xam ne bii dinañu basé wu. ñuy jékki-jékki rek fekk am na koo xam ne soxla nañ ko ñu ñu ñu dagg wala ñu def restructuration mais nekkul ci benn plan bu nekkul ci benn plan boo xamante ni nekkul ci benn plan boo xamante ni. dañ ci basé wu nga xam ne ku ñëw dama ci dëpp benn affaire moom mooy attribution partielle parce que man conseil municipal la wax naa ko au niveau conseil municipal attribution benn femme yoon attribution am yoon conseil municipal war nañu xam ban ban terrain la ñuy dagg ñaata parcelle la bu loolu euh, euh, logiquement bi am na yoon boo xam ne war na koy gàttal bu ñu demee nag ba attribution parcelle des dafa am commission boo xam ne moom moo war a toog commission boobu le maire moo ko war a jiite le receveur des domaines dafa war a toog wóolu am représentant am moo war a toog le chef du cadastre dafa war a toog le chef de l'urbanisme dafa war a toog le chef des services techniques communaux dafa war a toog ak benn conseil municipal ak délégué quartier yi nga xam ne ñoom ñooy jege foofu. ñooñu ñooñu commission bi nga xam ne ñoom ñoo a constituer attribution parcelle léegi ñooñu bu ñu toogee ñu étudier dossier ñu ni telle parcelle attribué nañ ko diw ñu jël le turam léegi le préfet bi nga xam ne moom moom représentant de l'État moom moo war a def approbation bi parce que préfet tamit moom mooy moom mooy le représentant de l'État moom moo chargé du contrôle de légalité lépp loo xamante ni conseil municipal moom moo koy def préfet moo xool ba xam est-ce que lii jaar na yoon wala jaar bi yoon nee na boo xoolee Kébémer fii loolu amu fi hmm. Kébémer moom loolu amu fi commission boobu man de yëguma xam na réunir commission boo xam ne recevoir président national ko chef de caractère yi chef de débat yi ñu ko ci jël terrain yi jox nañu ko dégg loolu gisuma ko fi daan ci gis ay papier ay feuilles vierges yoo xamante ni dañ koy remplir après. comme si dañ koo attribué woon kenn koo xamante ni. c'est grave. moom tax moom moom tax xam naa nan ko jëlee mooy loolu. mais euh, ni ma la wax noonu loolu mooy yoon bi kon ñun li ñu réclamé rek moom mooy transparence parce que bu wax na ko léegi. Mm-hmm. bu wax na ko léegi nga xam ne ñoo ko bokk dañ ko war a jaarale yoon te loolu jaar yoon boobu moom amul te comme li waxat li wax léegi nag su fekkee tamit man li wax nii du dëkk nañu woote ñu démentir voilà merci beaucoup ñu koy euh, gërëm euh, Modou Sall nekk professeur euh, lettres histoire géographie

aleykum salaam wa wow, waaw ñu lay ziar baax sant bi la def waay di jàmm ñu sant kooku man la bàyyi yow la bàyyi ñu wow, njax waaw waaw bàyyi dëkk njax waaw li sëñ ah dëkk bàyyi bàkk kenn du kenn du ko raay daf koy wax. gis nga fii fi nga nekk na fi kër goo xam ne dañ koo xaaj moom waa ne CNR. xaaj ko jaay ko kenn ba pare. ñoom mm-hmm. fekk benn benn kër ñu xaaj ko ja jaay dafa gën loolu dëkk. suñu mm-hmm. waa ne yëpp ñoo ko def. Mm-hmm. boo ma woo yow boo ma ñëwee toog tey man la kër jiw la. waaw ah. waaye nag yëpp xam na li may wax te ñoom heureusement sax dëkk bi dafa fa bokkul ci ñoom. lañ ko def ci ay client ay sàcc ay. dëkk yi kenn xamul ay sama doomu aadama yi kenn xamul nu mu toll. waaw parce que dañ koy wax nee naa ay PNP benn bopp fan benn bopp pour benn bopp benn bopp bu mu ko bu mu ko doon du loolante. waaw ah. mais ñoom dañuy ñëw di lool askan wi. ñu ngi nii daanaka ñu suñu xol bii di kare bi daanaka ñoo ñu xam ne ndox te jiwoo bi dañ ñu wax képp xëccoo bi daan dana leen def a dox mais ñoom ñoo ko boral. pour ah ñoom ñëpp a ngi ah. ci dëkk ba pare bu leen wax dëgg dinaa dinañ ko naan dinañ yàlla mën a wax de invité ma rek gis benn at. boo ko invité daal di ko loo xam ne daanaka ci baax te lépp dëkk lañ doon. d' accord macha allah jërëjëf. ñu ngi gërëm di ko sant alors Cheikh Boubacar. Euh, dégg nga réaction yi fi jaar sànq alors euh, élection locale la ñu jëm. waaw su ma jëm élection locale yi waaw dinañ ci dinañ jëm. Ah. mais réaction yii maanaam dafa euh, dëggal li nga xamante ne moom lañ doon wax parce que déjà boo déggee su suñu parewoon débat kenn ci conseil municipal bi wootewul rek du ma am lu ma neex mais heureusement bi nga xamante ki njëkk a woote conseil municipal xam ne xew ci mairie bi maanaam mu nekk loo xamante dafa ñaaw ñaaw na trop ci dégg Alex Salam Alex Salam kooku ñu ngi jaar man la

mi ngi noonu kon euh, réseau bi neexul 77 056 43 18 wala 70 728 96 97 alors euh, Cheikh Boubacar euh, Samb la ñuy àndal. Mm-hmm. da nga bëgg a def commentaire laataa ñuy dem nag ci. parce que élection nekk na période bu. mooy li ma wax léegi nii maanaam boo xoolee tey jii ñi nga xam ne tey ñoom ñoo jot a dugg ñëpp. Ah. maanaam benn kàddu bi ngay dégg muy noo xam ne tey dafa ñaaw. xamal na ko dama leen au passage Thier ñu lay jaar ñu lay jaar bu baax baax franchement parle nga nekk nit boo xam ne tey Kébémer daf la jaral ñu respecté la nag parce que nit bu respecté boppam doomu adama ñu respecté ko dañ lay wax big up jërëjëf sa taxawaay rafet na ci lépp ndax xam na allo. maaleykum salaam maaleykum ñu jaar baax. ñu baax baax. ñu def bu baax. média Samba Mbacké ci rajo émission aussi ak li doxee. jërëjëf. waaw loolu nag tey de bi ñu bëgg comme ni ngeen ko déggee noonu mooy Kébémer bi nga bëgg yóbbaale Mbacké sax bu bëgg ko ma bëgg ko mooy Kébémer bi ñu bëgg. muy Kébémer bu développé Kébémer bu leer Kébémer bu set Kébémer bu nga xam ne jeunes yi bëggee liggéey liggéey Kébémer mooy jeune dëkk ba nga xam ne dafa am sécurité doo ko nekk dëkk bi bari na soo ko ne gaar bii ni dëkk borom kalaam yi sonn na ndax am fu mu gaar fu mu taxaw di dàq leen jàpp leen borom wuti yi amuñu fu mu gaare fu mu taxaw ñu dàq ñu jàpp leen borom jaxasaay nekk ci fitna yooyu yëpp bu ko jël nag la tax mairie bi ñàkk expérience ak ñàkk xalaat ak ñàkk la nga xam te ni vision moo waral loolu suñ demee ci ginnaaw tuuti ñu xool ay jamono sàmmwaay beeg demal li ñu yore maire bi nga xam ne dafa xalaat mbaa xam ne il faut investir rek fii si lii gën a maire doo xam ne daal jéeg yi tax ñu ko sori ndax moom moom ba mu koy def ba ñu xalaat naan ah xam nga immigré yi nga xam ne doo nekk ci réew mi ci ay oto li nga xam ne boo gisee dafa daw classe bi ci biir dëkk bi wala suñu gaz bi ba mais ba fekkee loolu ñu jëloon gaz bi gaz bu njëkk bi def ko marché te loolu tey mën naa nekk espace bi nga xam ne euh, bu doon euh, euh, classe bi fa la ñuy gaare bu doon kii fa la ñuy gaare bu doon dakataay fa la ñuy gaare ñu dañ daa def dafa dafa def ko def ko ay fa ay fàttali ko daa koy jëndoo ba ñu séddoo kër yi maanaam kër lañ doon wax ne li fi nekk moo gën a tuuti mooy pôle industriel bi nga xam ne bàyyi woon na ko fi du ko def espace bi jaxas jaxasee nañ ko soo xoolee bi nga xam ne mooy responsabilité pour ci bu bàyyi ay récolte yëpp jaxas jaxasee nañ ko sàcc ko jaay ko loolu nag dina naagal ñu jënd ñu pour la chaque revers ñu ñëw ñëpp dëkk bu ñu war a ñu ci moom la suñu loxo xeex ko loolu nag dina sens dafa nag population bi dox ñu ne ko man. te ñun instant bi mooy ñëwaat élection maire doo tax ñu jël ñu jënd dëkk ñu ndox mi fu nekk ba ci instant bii li nga xam ne mooy ay jeunes war a fekk dañuy dem tey lu lu expérience ba leen kaa jox ndax tout simplement xam ne jeunesse bi ànd na ñoom soo xoolee dëkk na instant bi man jeunesse bi laa waxal li may ko yéen ñëpp mu ñëw te loolu ñun ñëpp mën a xeex te loolu bu ñu xeexoon élection dong la parce que la ñu jàpp benn si moom la ñu jàpp mënul su mu mag 31 ans ba ñëw Thierno Mohamed les pouvoir pendant 14 ans dëppoo. dinaa di yoraat beneen 7 ans encore yoo xam ne nii dëppoo kon ba su ko joxatee ba muy def ba su ma def rek ndax loolu 14 ans munoo def kon te boo laajee naa joxaat ne 7 ans ma def foofu yëpp nañu la loolu nag ñu ñëpp mooy def ñu responsable ñun doo ñu gën a mel ñu ngi vidéo yore si la tey. doo xam ne dafa nekk moo gën a dafa mën a bokk saaxee bi nga xam ne ay dem bu ko gàddee nga suñu liggéey ko am expérience nga xëy ba dàqali ko tout simplement ndax nag dama am solo ba nga xam ne nii man la àndal hmm. amul expérience jàmm dëkk bu bari laa jël remplacé ñoom. jërëjëf te ñu soxla. merci.

mouvement bi mu ngi tàllal loxo képp koo xam ne tey da nga nekk ci commune Kébémer muy papa muy yaay muy jigéen muy mag muy ndaw ñu ngi tàllal ñi nga xam ne tey bëgg na changement fo pour Kébémer moom bëgg ñu àndandoo ñu ñëpp ñu bokk nday bokk bàyyi ci et puis ñu bañ a xool ci kaw xam nga xool ci kaw mooy lan man accepté wu ma pour le moment nit ñëw naan ma man Cheikh Boubacar Samb Sonko la man Cheikh Boubacar Samb affaire la man Cheikh Boubacar Samb diw la xam nga lan laa bëgg pour le moment ñu ñëpp ñu jàpp suñu ay cër nekk Kébémer waa doom Kébémer parce que gis nga bàyyi si nga xeet bu dee dëgg la ci yow sa kër nga koy commencé teg ci sa koñ teg ci sa quartier teg ci sa dëkk ba cee teg sa ah, am réew parce que loolu la nit war a doxee te gis nga bàyyi dafa am loo xam ne dafa mu ngi mel ni julli ak woor ci jullit bi est-ce xam ne su borom daf na koy laaj ëllëg dafa bokk ci li na yàlla di laaj maanaam ni nga nekkee woon sa dëkk su nga tey jii bu fekkee da ngaa bokk ci ñi nga xamante bi ñuy saboote dëkk bi danga nga cee àndoon man ay dumay ëllëg nga ci am bu fekkee ne da bokk ci ñi nga xam xamante seetaan rek ak mu neex la ci nga nekkoon maanaam da nga ko waxanteeg suñu borom parce que da ci am loo xamante bu ko ñëpp bokkee ñu bëgg ñu comme dem naan ba nga xamante ñi fi nekk nag ñoom maanaam dara lu rafet bëgguñu ko parce que dañuy jëloon dëkk bi jëluñu ko woon lu rafet ta toogewuñ fi lu rafet amuñu woon envie def fi lu rafet léegi dama bëgg ñun ñi nga xam xamante ñoo ñoomu dëkk bi ñëpp ñu mobiliser

lenn moo ko dese xam nga élection yële passé dem ba confiance troisième place gérer dara def ko liste. est ce que ko fi ñun pour ñun kenn wala yow da ngay dem ñooñu ñun dañuy dañoo ñëw pour dem élection maanaam ñun pour ku mënti doon dañuy àndandoo. caution bi seeroon yow da ngay dem li ma la wax ñun caution 15 millions moo gën a cher te dañ koo def dem ci élection législative yi passé kon caution jaaxalul. ñun ñun ñun ñun ñun suñu live leneen la ñu xeex mais du problème mu loolu du loolu moom moo ñu jaaxal maanaam pour tey ci jaas yi nga xam ne mooy rendi waaj ak sëñ bi naa muy xàmmet la koy jënd ngi fi. ma ragal wuñ ko pour dara est que xam nga ne lu mu pare pare naan lu ko raw man keneen ne ah man de laa wax man Cheikh Boubacar Sall man damaa pare te gis naa ni am na ñoo xam ne ñoo gën a pare pour Kébémer gis nga la fi jaaroo jaaraat fi jaaraat fi mu baa bu fiy jaar dina jaar très bien jaar ci kaw nit ñi bu fekkee ay menaces la ko jàppee nag jàpp ne dama leen a menacé maanaam tey bu ñu koy wut noonu man xam naa seen première noonu ci Kébémer parce que man noonu maanaam man noonu laa def man maa ñëw taxaw seen parce que maanaam dañu dañu man nit boo ma respecté wu rek man respecté wu ma boo ma wu un la nit laa boo xam ne un million laay taxaw yu ma la respecté wul man parce que ñàkk maa respecté mooy jël sama dëkk li ma moom li nga xam ne ñun ñoo ko bokk nga koy caxat-caxatee ba pare naa moom maa tay àndandoo ak le politicien au gros ventre ay nit lañ ay traître la non d'accord ok d'accord parce que su bëgg na ñuy jël xam nga débat bi aussi di. Euh, euh, daa personnel personnalisé parce que mais nag am droit nga parler l' institution l' institution c' la mairie. d'accord mais bu lu bu personnalisé. non man nag kaay wax wala benn affaire baax. personnalisé gis nga tey jii bu fekkon dama jugoon pour ñëw cité seen ay tur. déggoo man la seen i sax dama len cité ndax ma ñi may wax bàyyi ñii ku dul ñom sax ragaluma ko. d' accord gisuma ci ñom kenn ko xam ne dama lay xol sama xef di wacc adduna bi ak Kébémer bi man bu dox ci kaw lay xol

mais dañoo jug pour li nga xam ne ñoo ko bokk suñ ay frère ko moom suñ ay mbokk ko moom suñ ay dëkkandoo ko moom maanaam li nga xam ne ñoo ko bokk warul ko séddoo teg ko ci digg bi yamale ci ñëpp bu def nii man ñii ñoo ànd ak man ñii ñoo farak man ñii ñooy samay goro ñii ñooy suñu waa kër ñii dama leen di jox vingt parcel te bi gën a ñaaw mooy cinq parcelles jaayat kaat yi tabaxee benn bi bàyyi dafa am loo xamante bu ma toogee ci plateau bi nga naa man man fa yem manam tay am lu bari rek bu may xol mo tax moy lima la wax dama yak ak suma frère bi wote legi nan ma recadrer watal dara de en ah, débat bi ci yenn affaire ni ni si ko dama wax ak yow ci lu bari bari parce que leer nan la yow ñima jakar lo man akam mo le yow da ngay euh, sa mouvement bi il paraît que dang ko bëgg orienté vers le, la coalition benno bokk yaakar gis na nga am ay lien ak ak ak ay dama bëgg lien yoy nga wax ma ci ben gis na am da nga naan ma li la nga ana lien bi. amul lien ak ci kan ak lan ak lien bi lan moo ko indi ak lan ak lan ak lan ak lan nga gis sama diggante ak ñoom fan laa taxaw ñu taxaw lan lan ma jox lan lan ma wax lan laa leen taxawale ndax dama leen a plaideel wala lan. kon kay yow da ngeen a bëgg candidat indépendant ngeen bëgg. merci beaucoup candidat indépendant bëggul li ma la bu far fenn nag bu farum fenn nag. li xamal lan lan bëgg ñu maanaam koo xam ne Kébémer moo ko intéressé. xamna nga lañ ku pare pour Kébémer xam nga lañ bëgg koo xam dafa doy loolu li yor ba pare dindi Kébémer yor mu bokk ci li yor maanaam jàppale commune Kébémer ki nga xam ne tey dara intéressé wu ko ñun Kébémer développé ki nga xam ne ñun bu jotee ci dëkk bi dinañ def lu tout ba situation bi changé Kébémer heure waroon fekk mu nekk ville bi dàq ci ville maanaam ab daj ab tomb la ci Sénégal maanaam boo ko doon rek muy pare Kébémer jeunesse bi parce que Mouhamadou Rasoulillah heure waroon fekk xam tax ñu fiy dàq dëkk ñun am na moment laa la wax nii ci kanam ah bi président Abdoulaye Wade nekkee ci réew mi heure bi waroon naa fekk jeune bu taxawal KMH te xanaa ko moom ab dëkk xam nga moo ko mën a développé mu jeune bi am xaalis. mais dëkk bu mu mën a doon dëkk bu mu mën a doon bu jeune yi liggéeyul dëkk ba du dem parce que jeune bi benn Boubacar Sam mooy liggéey fay salaire gis nga maire yi jaay ci marché sax di jaay ci mbedd yi boobu fay ko amul yaakaar pour lebal la est-ce que fu may xëy yow nit ki ngay jël sa alal deg ko lebal day fekk mu leer nañ kii weer dee mu tàllal loxo mais Kébémer demewul manam jeunesse bi moo amuloo xaalis parce que dañoo deful lenn dañ leen a jàppalewul ci dara man ay jamono bi nekk bir PDS gars yi li taxoon ñun ñu gën a créer suñu mouvement bi parce que dañ fi jëloon fii nii ci garage bi lu toll ak ay quarante et quelques euh, en permis de conduire dem yóbbul ko ki fi nekk nii ak ñeneen ñi nga xamante ay numéro politique ñoom Dakar pour ñu jéem a jël quarante yooyu jéem leen a fexe wut fu leen dugal mais xeex lan foo mujjee taxaw aju lan def boo yi garage bii bu Kébémer bii mais légui imaginer 40 personnes yoy gars tassone tasoon ki nga xam ne tey tey jii moo fi nekkoon nekk directeur port jël ñenn yi ki yow nga nekk questeur kee nekk le manam maanaam danoo yoroon lépp possibilité xam nga nak ku yor lepp mën def ci defu boo demee ba yoratul daal ni da ngay def sa waay Baye Mbacke loolu maa ko mën a tudde loolu du dëgg c'est pas vrai boo ne da ngay def ñu def ba nga mëne def defoo ba yow ba nga capable buy def lepp nekk fi pour nga def iñaane nga ko ci bi li gën a garaaw mooy bu soxor bu iñaan ñi bu bëggul sa dëkk def nit xamne xamante yow pour yow bu sa dëkk demee gaay dañuy kontaan nit bo xamne ne bëggoo sa jeunesse kontaan nit xamne xamante bëggoo sa sa jeunesse am santé nit boo xamante da nga bëgg sa ay jeune doon ay sacc nit boo xamante da nga bëgg sa ay jeune doon ay yalwaankat nit boo xamante da nga bëgg sa ay jeune du am mun sol du lekk du naan ñun nit boobu lan am allo mako wax oui kooku saba na nga def soo waa ji ba ko baax kan la kii de monsieur Ibrahima Diallo Diallo ñu lay nuyu ba waaw maa ngi leen di ziar bu baax. di delloo ziar bu baax a baax. voilà di kontaan ci ci vraiment ci émission bi. voilà ci rafetlu rek vraiment ni muy doxee. di nuyu Boubacar. di ko di ko ñaanal vraiment te yàlla na ko yàlla defal jàmm. ndax itam hmm. message bu clair la porté par rapport ak la situation bi nga xamante ni bopp la Kébémer tollu tey. donc ñun situation bi amee du ñu lu ko éduquer ak di ñun nag Kébémer rek moo ñu ñor comme ni ko waxee te Kébémer benn bopp la te kenn mënu koo xam ñaar ñëpp ay bopp lañ di rafetlu sànq intervention bi nga xam ne ñu ngi na ko muy Makhtar Fam par ak li nga xam ne moom la Boubacar a taxawee mais Boubacar doomu dëkk bi la. nit muy waxee ci man xam naa ne xol lay waxee ndax daa am lu ko metti te ko metti moom mu metti askan bu Kébémer lenn rek mooy li nga xam moom laa ko gën ñaax nga gën a xam ne daal moom buy wax ñëpp lay waxal. ndax am na ñoo xamante ni bu ñu amee lu leen dem nañu ko mais moom mu ngi wax ak ñoom moom dañ ko gërëm wax ne aussi na bàyyi xel na peut ñoo xamante ni tey comme ni ma ko ñëpp ay benn bopp ay bopp lañu même bu fekkee itam contre nañu li nga xam moom moo fi nekk am na taxawaay boo xam ne bu ñu ko taxawee ñooñu bu ñu naroon jàppale sax bu ñuy jàppale ndax dañuy jàpp ne affaire bi dafay nekk affaire bu xeex wala affaire bu diggante wala affaire te ñun Kébémer rek moo ñu ñëw ndax li may wax rek mooy ñun fu def Kébémer la ñu dikk Kébémer la ñu def fu ñu def kenn la ñu def suñu doom si la nekk suñu soxna si nekk suñu lépp si la nekk donc amul jëm donc bu ñu sañoon Kébémer day mel ni yeneen département yi day mel ni yeneen commune tey boo xoolee Kébémer dafa tardé ndax mais li ko tardé bokk bokk na ci ñàkk am équipe bu ambition mais aussi bokk na ci ñàkk ànd ak état ndax gouvernement mooy defar dëkk te tey contre bi ñu contre pouvoir nga xamante ni élection bu ñëw ñu ne noonu dañu xeex pouvoir bëgg dëkk bi def je pense que dëkk bi du donc loolu bu ñu ñu ñu ngi dégg. allo. allo Diallo. Ah, ñu ngi lay dégg waaye. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. ñu ngi koy sàmm da ko wax ne na ñëw jàppale à grande majorité présidentielle et c'est une coalition boo xam am na avenir te am na programme pour que Kébémer a changé te ñun du benn nit mooy gagné Kébémer mais une équipe moo mën a gagné Kébémer te une équipe mooy liggéey te tey boo xoolee la municipalité ñu naan échec échec na échec na ñu naan le maire le maire mais boo xoolee le maire am na ci part de responsabilité mais d' abord c'est une équipe qui n'est pas équipe bi nekk ci ginnaaw moo tax mënul réussir mission yi nga xam ne dafa ci mais ñun dañuy fexe ba nga xamante ni kañ la tànn mu nekk ku bëgg Kébémer mais aussi mu ànd boo xamante ni Boubacar moom ci lay bokk keneen ak keneen ci lay bokk pour que Kébémer mën a am changement te loolu ñun ñëpp ñoo ko war a boole suñu mbir mu nekk benn donc di wax ne rek vraiment ñu ngi rafetlu émission bi di ko encouragé encore plus di dolli di ko tàllalaat ko di ko xamante bëgg ci bëgg Kébémer Kébémer ki ñu bëgg Kébémer ñu bëgg ñu Kébémer boobu fa la dëkk te ñu aussi ñoo ko bokk bëgg kon na ñëw ñu ànd liggéey dafa Kébémer maa

ñun bu fekkee seyal dafa am xamal ñun ñooy wéñ. yéen léegi loolu la lépp lépp taxawaay dignité personnalité. nit ñi bokkul ba pare Kébémer suñu town la ñun ñoo ko moom. allo salaam. waaw parce que maa ngi leen di ziar. ñu ziar kooku. baax. di nuyu aussi grand frère kenn sànq ci la ah ah allez-y. dama bëggoon participer ci émission bi. waaw waaw ñu ngi lay waaw mais dama bëggoon participer ci émission bi. d' accord waaw yi. ma ma ciy participer nag mooy li ma ciy participer woon rek bi euh, nga xamee ne ni chef bu mi euh, ngi doon lancé euh, mouvement bi kenn nekk bi bëgg. Mhm. mu am loo xamante ni peut être que ci émission bi moom développé wu ko ci ci ci ci lu bëree bëri. te orientation émission bi demee moo tax mu dugg ci loolu yëpp ci dénonciation yi. ne euh, Kébémer li mu bëgg dafa dépassé euh, ay benn boobu yaakaar Kébémer li mu bëgg dafa dépassé parti politique dafa dépassé par parlo ndax jàpp na ni lu mu daal ci Kébémer par parlo ak parti politique noonu ba def Kébémer duñ bëgg dañoo bëgg Kébémer nekk ca mairie ba ndax bu Kébémer nekkee ca mairie ba Kébémer la fay nekk du doon par parlo depuis 2009 ak mouvement waa Kébémer engagé woon dans la citoyenneté active kon donc xam nga lan mooy nag soxlawul ay politicien uh-huh. soxlawul si profité ci ay euh, ay entente wala ay leneen di wax Kébémer li ñu soxla mooy ay doomi Kébémer te doomi Kébémer yi ngeen gisoon démb ak bët ci démb ñu amoon pas-pas amoon bëgg-bëgg amoon yëg-yëg ci Kébémer tey na seen pas-pas ak seen bëgg bëgg-bëgg ak seen yëg-yëg gën a yomb kon donc loolu day wane Kébémer ñu bëgg prolongement la mouvement waa Kébé la prolongement euh, stabilité le prolongement actif le prolongement de toutes les forces qui def Kébémer ci direction boobu laa bëgg ñu xoolee ko mais gëm nga ni parti mooy defar dëkk ndax bu parti doon defar dëkk kon Abdoulaye Wade defaroon Kébémer dañu ne président de la dëkk ay doomi dëkk yu gëm seen bopp gëm seen dëkk ñoo ko mën a defar donc Kébémer bi ñu bëgg mënul am candidat beneen bu dul Kébémer kese Kébémer kese mooy doon candidat te projet ci réunion arrangement bi amoon na lu moo ko ma ne dem soxla ñaari mbir muy espoir ak confiance espoir mooy la mooy ki nga xamante si nii am na ci moom yaakaar ni mën naa jële kenn ne fii mu nekk yóbbu ko fële confiance nag mooy kenn jàpp ni moom tey bu ko falee ci jiital ko ci suñu dëkk bi mu ànd ak équipe bi mu war a àndal ànd ak li mu war a àndal pour liggéey dëkk bi non dina jël suñu dëkk bi yéen teg ko ci yoon du nekk par par loolu du nekk affaire parti bu nekk affaire bu gën. ja jaajëf man nag wax naa ko waxaat naa ko nekkatuma ci ay dénonciation ñun ci ay proposition lan nekk. ñu ngi liggéey ci ay projet ñu ngi liggéey ci ay programme su defee biñ bëgg ñu ne doon tur biñ ko porté bépp bépp doomu Kébémer waa boo xamante ni gën na Kébémer avant ndax tey bu ñu la leen intéressé yàlla nañ ci tuuti am nañ ci jaar ñàkk. dëgg la jaa jërëjëf merci xam nga Kébémer am ah, na lu ñuy jaar. jërëjëf Mamadou Mamadou Sène ñu ngi gërëm di ko sant alors.

xam nga allo xam nga ñun benn mouvement boo xam ne comme ni ko sama copain suma rakk suma lépp Mamadou Sène waxe léegi xam moom da di nit boo xam ne day membre clé ci biir mouvement bi xam nga lu ma lay wax rek mais nag gis nga sunu mouvement bi y' a tout lépp a ngi ci biir ay directeurs généraux ngi ci biir ay président la république a ngi ci biir ay maire a ngi a tout parce que ay borom bopp la dégg nga wala déggoo ma dama la ndaw ñi nga yaakaar ne ñoom laa ëpp yaakaar ci Kébémer xam ne ñii nii tey jii waxuma la développé Kébémer mais Sénégal sax ku ko jox mën nañu ko développé maanaam ñoom ñooy reenu mouvement Kébémer gënu bëgg du benn mouvement boo xam ne tey ci biir néeg wala fenn yow yàgg nga topp mouvement bi xam nga li ci xew xam nga tête yi ci nekk ak ñu ko wër ndax yaa ngi seetaan bu baax a baax a baax a baax kon xam nga ne ay caaxaankat nekkuñu ci ñoo xam ne tey tey jii Kébémer ñoru leen nekkuñu xam nga ñen ñoo ci nekk ñoo xam ne daanaka bare nan ba pare tey bu doon intérêt kese maanaam amaana mën naa wax ni yàlla defal na leen structure boo xam ne mën nañoo dund ba dee du problème parce que lu ci ëpp ñeen ñi ay enseignants ñeen ay professeurs la ñeneen ku ci nekk yaa ngi ci dara majeure partie bi mooy ñu sama kalaas gi ak yenn booy yi nga xamante maanaam daanaka lu mu ñàkk dëkk bi moonu ko xañ pour plusieurs raisons Kébémer Kébémer maanaam li mu xañ jeunesse am dafa bari si nga bàyyi bàyyi man mënuma bañ di wax di waxee nii dama bëgg nga xam ne tey mouvement bi dañ koy créer li njëkk a mooy ban doomu Kébémer la xam ne bu ko porté teg ko tey jii suba dina nu changer Kébémer ci domaine bi yëpp non ban ca non mu ngi ci di ci liggéey ànd ak ay nit ànd ak ñoo xam ne te ay boromi yi bopp la au passage maa ngi dégg léegi Diallo mooy interpellé am na droit ci li mu wax waaw waaw moom du leen def ci benn parti politique déggoo li ma la wax nii du Cheikh Boubacar Sall mooy décidé li ñuy def tantôt dama bëgg nga xam ne te Cheikh Boubacar Samb nit la membre la ci biir mouvement bi te coordonné mouvement bi est jël nga fu may wax ak yow. Hmm. mais dama ni la décision buñ ciy jël maanaam membre clé yi ñi nga xam ne te ñoo ko bokk ñun ni ñoo ko bokk mais mouvement bi ñun ñoo ko bokk maanaam noonu la ñuy toogee décider bu xalaat xam nga gars yi ku ñëpp xam foo jëm doo gaaw a àgg naam ci ñoom ñi ngi ko séqal dama bëgg nga xam ne te naa dañoo yori jinne leen jaaxal moom ay malaaka laa yor mais ñu ñoom képp ku xam parce ñi fi di woon ñëpp jaay na bépp ngor bépp xeetu ngor rek jaay nañ ko parce que man Kébémer laa gisee ay doomu aadama nga ñëw yëkkati ay millions jox ko ne ko waral sa doom baay waral sa doomu ndey waral sa mbokk waral sa xarit billaahi barki cheikh na cheikh Mouhamed Varal kooku dee wuute koo ma ko gënal ah way parce que day nekk woy boo xam ne fu ma tëdd sama ne bu ma xalaatee damay jooy parce que mënul ne bay Mbàkke man bis bu ma àndi ak yow ci dara mara jóge fële pour jox ma ay million pour ma wor la ma jël millions yi mara yi jënd ci jaas ñu ànd rendi mara parce que alxuraan karim noonu lay doxee ci jeune boo bëggee ni être quelqu'un ëllëg dangay ngay a defar sa toogaay bi ngay ndaw sa taxawaay man mar naan bu mu la taxa naan di dellu si waat di wax gars bi di leen mouvement Kébémer gi nu bëgg maanaam mu ngi fi maanaam tëjulul kenn buntu un li ñu njëkk a xeex ci dëkk bi mooy injustice deux mooy ki fi nekk mu neex ko ak mu naqari ko maanaam gëw ma ni dina dem élection parce que gëw ma ni ñoom élection yi ñun dinañ leen bàyyeeg ñoom gëw ma ni man ba léegi ba ñu taxaw ni man gëw ni moom dina dem élection pour plusieurs raisons de deux mooy même bu fi jógee ak ñun ku ne mën di àndal mu fi toog doo bàyyi conseil municipal mi bi mu dem te sax bala ñuy àgg foofu dinañ audit maire bi parce que déggoo sànq dama la wax ci biir wax ni la Kébémer ñiy sàcc dëkk bi di sàcc euh, suuf si di di ko def ay millions di ko jaay nee naa ñu ëpp duñ conseil municipal sànq bi ma la ko wax dama la tijjal micro yi bu dee ay fenn nan dugg ni ma li nga wax du dëgg li ma la wax ni mooy li nekk dama ni la secrétaire municipal bi fi nekk fan la dëkk gin gi neew la dëkk. mais secrétaire municipal c'est pas obligé mu dëkk. déggoo ma de dama ni c'est pas obligé. liggéey la rek waaw mais léegi da may gi neew la dëkk. Mm-hmm. da bàyyi ma développé. gin gi neew Souleymane nee na Ndiaye da koo dàq da koo limogé bi ñu ko jëlee foofu Mbàkke la dem fa la doon servir da nga ko limogé ndax lan.

c'est la fin de l'émission ma non fin de l'émission mënul nekk. waaw fin de l'émission dina mën a mooy huit de un jël nga sama ay temps. li ma loo bëgg wax li ma bëgg wax mooy ñu wax ci Kébémer li ma bëgg a wax mooy bàyyi nga xam ni Kébémer ñun ñoo ko bokk. Mm-hmm. dama bëgg bàyyi nit ñi ñu yeewu jeunesse bi nan yeewu suñu papa yi nan yeewu suñu yaay yi ngir yàlla ak jëmmi rasulillahi nan yërëm seen njaboot gi ñëw suba ak eska est ce xam nga ni sunu sunu sunu sunu njaboot gi nga xam ne tey ñoom ñooy ñëw alquran karim kenn du ci am kër manam kër bu fi boy six boy cinq boy quatre boy 18 boy manam ñaari nit nga cay fekk ñu am ay kër alquran karim laa la waatal booy dëkk bépp laa wax kebe mère majeure partie bi amnu ay kër kee mère jox na ci sa way jaay na fi 4000 a jël fi ay foncier yoo xam teg ko fenn maanaam canal yi marché bi ni mu ko def moo gën a bon mais marché bi jéemoor bi mu fiy nekk ay dañ dawal camion yi ba biir marché ma sama a am boutique a yóbbu añ marché yandu sama bopp bi yóbbu marché xam naa li ma lay wax kon est-ce ma dama la camion yi dañ dawal ba biir bi ko ko de ñun man dama daan yor moto di ko wëndeel biir marché su ma moto mais dama ni la déggoo li ma la bitig boo fa gis sa sa sa ginnaaw daggaat na ko jaay la ko sa kanam dagg na ko jaay keneen sa ginnaaw dagg porte yi tëj nañ ko jaay canal yi nga xam ne tey Mor Dieng doog fee defoon pour bu tey jii nii marché bi doon tàkk ñu sotti ci ndox benn bi nekk ci point rond bi nga xam ne tey moo jàkkaarloo woon sama bitig pap beneen bi nekk ci beneen point pour canal yooyu fat nan ko amatul fi man xam nga marché Kébémer ñaanuma ko yàlla bis bu amee benn tàkk-tàkk léppay jeex ak Mouhamed gars yi dañuy dagg bay dagg ci trottoir jàmm bi waa marché may dégg ba pare ànd ak ay sàcc ñuy ñëw ci dëkk bi mais man ñoo xamante ne mënu ma la wax ñii ay policier la mënu wax ay gendarme la ak moom nekk fa kan moo koy fay ki am un an ci place nan waxtaan man ak yow dañuy waxtaan. pat yow yaa ngi fay tax da nga may déglu dama ni la patente bi fi ko teg ay mboxum moo ci am man awma confiance ci ñoom maanaam ñi ñuy àndal sax est-ce que duñ ay nervi yu ñu fi indi di ànd ak ñoom di encaisser xaalis bi c'est à voir parce na Cheikh Mouhamed Vadal li may wax dëgg la te tamit na ci nit ñi bàyyi xel maanaam bu ndikkee dañuy cibler ay birig 40 000 50 000 nii nii nii 40 man ban njëkkee ñëw bi mais ban accès di wax dama leen wàcc leen trottoir bi ba pare ba nga xam ne fii nga xam maa ko moom loo leen wax ngeen door wax mais yéen même boo leen wax doolu yéeg sama ko trop tard taxaw leen suuf si wax ak man parce que man moom franchement parle boo bëggee dégg dëgg man sama lépp mën naa ko faytal sama bopp mais da ci am loo xam ne dafa ñaaw gis nga booy laaj ay patente diko ko laaj di ko laaj di laaj ba fekk bitig boo xam ne tey tey jii soixante mille yi nga koy laaj maanaam njëgu quarante mille la nekk ci bitig bi nga bëgg koo laaj soixante mille di tëj nit ñi nit ñi di tëj seen bitig di daw ba pare marché Kébémer gën a bon ci marché yi yow dafa courant dafa rool lampe boo demee mbar mban ñetti lampe bis bu nañu suuli fa xam nga korok imam mu ngi wax naan leen yéen ñiy jël suuf si xam leen ni suñu borom boo jëlee ci pepp suufu doomu xanaa xamu ni Baye Mbàkke yomal xiyaam di tax yàlla di lakk ñëpp mooy suuf si barke alxuraanu karim bis boo jëlee ci pepp suufu jàmbur dëkkaale ko sa dëkk yàlla wàññi ko sa lumière ajana lu garaaw laa lay wax Baye man xamu ñu jëli loolu fu jëm kon bu leen neexee mën ngeen a war di def lu leen neex parce que man de man mënuma gëm ni mu te yàlla lu mu wax da koy def mais Baye ñun kontaanun ci ñu nu jiitu Baye ñi nga xam ne tey vingt et un ñoo yor Kébémer maanaam ñoo suul Kébémer maanaam Baye heure bi waroon naa fekk fépp foo nekk ci Sénégal da nga naan man de Kébémer laa jëm man de Kébémer laay vacances mais Kébémer mooy dëkk bi nga xamante ne bàyyi hmm. bu ñu waxantee dëgg ca yàlla tax mooy dëkk bi nga xam ne moo ëppi taxawaalu kat mooy dëkk ba bi nga xamante ñu dàq jàng ci Sénégal moom fi doon dëkk kooku moom leer na ma naañ mais bi ñu dajaloo ñoom it ñëw pour développer fii ci Kébémer ñëw pour teg parce que Seydina Mouhamed gars yi dañ leen ko xañ

man de mënuma laa jëlal ñu bàyyi mais mën naa laa jëlal fukki nit mais ca kaw fukki nit yéen damay wax lu leer waaw mais dama lay jëlal juróom bu demaatee tuuti ma jël juróom ma ne ko mais ca naka parce que man bugguma tayle doomu jàmbur bugguma yóbbu xale foo xam ne te ëllëg la mu fay amee maanaam bu ci mën a satisfaire boppam ëllëg wala mu koy indil ay jafe-jafe ñu waxtaan ci mais day nekk loo xam ne te waxtaanu mouvement bi la et puis di profité tamit di wax ni ñi nga xam ne bindu jéeguñ woon nan dem bindu ji ñi nga xam dañoo am ay problème carte d'identité am problème xaalis non man sama sama carte sama euh, sama téléphone defe naa ne KMN gépp ko am parce que képp ku am yenn problème yi dama ciy taxaw. yow koñ bi nga dëkk loolu la fa def seen mouvement bi ngéwal noonu lan lan fa def suñu mouvement bi cest wala parce que mouvement moom ça n'a bi moo politique bi maanaam ànd nañ dara parce que boo xoolee ñun bi ñuy créer mouvement bi li gën a tax ñu créer ko. moy xex ak ñi fi nekk di def injustice ci dëkk bi ko pare maanaam xalaat bi mu ngi commencé ci manam tey jii nii fexe ba dëkk bi képp koo xam da ngaa nekk ci Kébémer yor kër mu am courant ñu lay ñaan ci barke yonent yàlla muhammad pour ñu développer dëkk bi tuuti na ku ne génn benn lampe ci buntu këram pour ñu leeral dëkk bi tuuti parce que déjà lampe bi nga xam dañ ko mayoon muy ay solaire ñu dugal ko ci dëkk bi maanaam ñu maye ko ci Sénégal gépp ñun bi ñu dafa yóbbu benn ba këram yóbbu beneen ba ba buntu kër adjoint au maire beneen bi mu yóbbu ba benn kër beneen adjoint au maire ñi fi nekk nekk ay kilifa diine sax àggu fa ci ñoom ci ñoom maanaam muy loo xam ay institut yu ñaaw tamit ci ab dëkk parce que ñun suñu njiit yi nekk ay kilifa doon ay sëriñ ñun dañ leen a gëm trop waaw parce que ñun ay taalibe lañ kon da ci am loo xamante bu buñ ko jiitewul ci ñoom buñ ko commencé ba jub na sama sëriñ ba nag dafa am lu mu waxoon benn politicien mooy ba mu defaree taalibe ba jub ko agsiwul dane ko doo gaaw a agsi mais ba ko ko waxee deux mille la sa waa ji jaar na fa mais ba léegi agsiwul mais ñoom tamit àggunu mais ni leen sëñ bi xamal nii fi mu toll nii fi leen yem te benn affaire moom moo ci des tamit te dinaa la ko wax mooy na kemeer na jeunesse bi pare nan pare pour plusieurs raisons ku ci nekk boo amee sa rakk na nga wax ak moom boo amee xarit na nga wax ak moom boo amee copain boo mën a waxal na nga wax ak moom maanaam na ngeen def la tout ba bul leen nax na ngeen def la tout ban mun naan man Kébémer ci nax leen laay dëkk bii paa bu mu demee noonu bu fekkee ne dina bokk bu fekkee ne ñun dinañ ko ko permettre parce que tamit parce que tamit ñun bul fàttali bàyyi yor nañ ay bagages yu bari yoo xam ne te yaakaar nañ ni buñ ko yóbbee Cour des comptes war nañoo mën a am ndam ci kaw waa ji d'accord waaw on verra ma lay gërëm di la sant waaw Baye Mban maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo toog ci suufu garab yi surtout Daes euh, mu nekk ci koñ ba yor fa nga di atelier atelier ba Bamba Mam Moïsa maa ngi koy gërëm moom it yor foofu atelier Xadim Rasoul yéen ñëpp ñu ngi leen gërëm di gërëm waa Njoobeen sama xarit yi nekk foofu noonu di gërëm ñëpp ñi nga xam ne te ñoo nekk suma koñ aji Géré Ndiaye sama yaay mënuma la bañ a gërëm di gërëm ñëpp di gërëm Mamadou Sène bi nga xam moy suma frère moy suma lepp waaw dégg ko sank li mu développe parce que danaka lu bare bare bare bare bare bare ci côté politique moom danaka mom moma ci expliquer mo ci ciy waxtaan ak man tax moma ci té parce que tay bu ko neexon tay mom moy ñëw tok fi di gërëm Latif sama grand di gërëm ma ngi gërëm ñëpp parce que buma limé damay joom jaajëf def buma ah. limé damay joom di gërëm Mara borom KMR TV parce que bo ba légui mo ngi tok lu mu sa def rek mu ngi ci taxaw mu sa def pour Kébémer rek

kon kon leen askan confiance bi askan yu am ci yéen da ngeen leen koy delloo jéem leen a jàppale ci injustice yi am ci dëkk bi di ko dénoncer. Hmm. parce que nag franchement parler maanaam dëkk bi metti na doy woon ci émission bi li bëgg a wax hmm. lépp xajul ci émission bi mais yaakaar. non bariwul parce que parce que tëj non non non boobaa bu neex sax mën nañoo tëj téléphone yi parce que man li ma war a développé yëpp mënuñu koo développé en tout ah. cas daal maa ngi wax ni sama papa yi nga xam ne ñu may déglu hmm. nekk sama ay papa nekk sama ay papa xam naa tax ma ne ay papa la maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant sant ñëpp ñu may déglu di sant waa Kébémer gépp di ñaanal ñëpp waa mouvement Kébémer gi nu bëgg jigéen ñi yéen ñëpp li ko yow laa koy jox nga joxal ma ko bépp jigéen boo xam ne dafa bokk ci mouvement bi maman yéen ñëpp maa ngi leen wax yàlla na leen suñu borom fay ci et ngeen gën a taxaw na ngeen gën a taxaw na ngeen gën a taxaw Kébémer gi nu bëgg merci merci beaucoup pour tout yéen ñëpp euh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf Cheikh Boubacar Samb moom laa doon dalal mbokki ci émission bii di leeral leeral jeex na leeral ci beneen samedi bu neexee yàlla ak beneen leader politique moo xam ci commune wala dans le département devant ce micro Baye Mbacké Dia la cabine technique ki ko géré woon mooy Modou caméra bi ak télévision Kébé TV Mara moo ci nekkoon dañ leen di bàyyeek euh, DJ ba